islam bi yëpp. sëriñ baa ngi leen di nuyu. sëriñ baa ngi nuyu ñëpp. di nuyu mbokk yi fi daje yëpp. di nuyu nag mbokk yi fi daje yëpp. di leen sant. di leen sant bu baax. ci wuy si bi ngeen wuy si woote bi yàlla. ci wuy si bii ñu wuy si woote bi yàlla. yàlla dafa wax ne. yàlla dafa wax ne. yaa ayyuhal ladina amanu. yaa ayyuhal ladina amanu. istajibu. istajibu. lillahi. lillahi. wali rasuli. wali rasuli. iza daakum. iza daakum. lima yuxyikum lima yuxyikum dafa am benn mbok nee dafa am benn mbok bu ñuy wax abu saad bu ñuy wax abu saad ibnul mualla ibnul mualla nee na dama nekk ci biir jàkka ji di julli nee dama nekk ci biir jàkka ji di julli sang bu tedd bi woo ma sallallahu alayhi sang bu tedd bi woo ma falam ujibhu nee na falam ujibhu wuyuwuma ko wuyuwuma ko ma jullee ba àggal. bi ma jullee ba àggal. ma ñëw ci sang bi ne ko baal ma. ma ñëw ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko baal ma. bi nga may woo. bi nga may woo. dama doon julli moo tax wuyu ma la. dama doon julli moo tax wuyu ma la. sang bi ne ko. sallallahu alayhi wa ne ko. xanaa déggoo li yàlla wax. xanaa déggoo li yàlla wax. te moo di aaya ñu jàng moo di aaya bii mu jàng léegi. Seydina Muhammad am na cër bu toll ni. sallallahu alayhi wa sallam am na cër bu toll ni. li julli di foor foor soo kàbbaree mu woo la. di julli mu woo mën nga koo wuyu. mën nga koo wuyu. sa julli du yàqu. te sa julli du yàqu. cër boobu moom la yàlla séddee. cër boobu moom dong la ko yàlla séddee. ne ko nag. ni ko nag. bala ngay génn jàkka ji. balaa ngay génn jàkka ji. danaa la jàngal. danaa la jàngal. saar wi gën a màgg ci saari alquraan gën a màgg ci saari alquraan yi. Abu Saad nee na. Abu Saad nee na. mu jàpp ci sama loxo ñuy dox. sallallahu alayhi wa jàpp ci sama loxo ñuy dox. ba ñu demee bay waaj a génn wala ba génn. ba demee ba génn jàkka ja. mu mel ne sang bi waxul dara ca lam ko waxoon. mu mel ni sallallahu alayhi wa sallam waxul dara ca lam ko waxoon. xale bi itam bëggul bàyyi occasion boobu mu rëcc. xale bi tamit bëggul la bàyyi occasion boobu mu rëcc. mu ni mu ni ko yaa rasulallahi. yaa ma waxoon ne ma danga ma jàngal saar wi gën a màgg ci saari alquran. yaa ma waxoon ni ma léegi ma jàngal saar wi gën a màgg ci alquran. sang bi ne ko saar wi gën a màgg ci saari alquran yi. sang bi ne ko saar wi gën a màgg ci saari alquran yi. mooy suuratul fatiha. mooy suuratul fatiha. kon li fatiha ëmb. kon li fatiha ëmb. waxuma la sax fatiha. nee na waxul sax fatiha. waaye basmala la li mu ëmb. minal asraari. ci ay secret. ci ay secret. wal anwaari. ak ay leer. wal barakaati. wal barakaati. ak ay barke. ak ay barke. wan nafaxaati. wan nafaxaati. wal mawaahibi. wal wa xawaasi asraari. wa xawaasi asraari. wa xawaasi asraari asraari. wa xawaasi asraari asraari. li mu ëmb. li waxul sax basmala. waaye baagi rek. waaye baagi rek. li mu ëmb. yàlla jéggal sax ci rekk ji. yàlla nañ yàlla jéggal ci waxin wi. li Serigne Cheikh si wax ca ba. li Serigne Cheikh si wax ca xasidaam ba. baa un tasiiru. tanaqulan. tanaqulan. wa bi sayriha. wa bi sayriha. waladat. waladat. xutuuta. xutuuta. bunyaani. bunyaani. baagi li mu ëmb. nee na waxtaane ko xajul ci benn jataay. waxtaane ko xajul ci benn jataay. la mu la mu ëmb. nga xam ne mooy as-sab'ul masaani. nga xam ne mooy as-sab'ul masaani. lu nekk saxaaba yi daan nañ ko ci. lu nekk saxaaba yi daan nañ ko ci def. ku sa gëleem masa réer. sa gëléem masa réer. nga bëgg mu feeñ. nga bëgg mu feeñ. doo jéggi faatiha. doo jéggi faatiha. la ca nekkoon nag. la ca nekkoon nag. mi ngi ci ba mi ngi ci ba léegi. mi ngi ci ba léegi. ci ñun la dese rek. ci ñun la dese rek. kon mbokk yi. kon mbokk yi. ci barke Fatiha. ci barke Fatiha. barke Salatul Fatihi. barke Salatul Fatihi. barke laa ilaha illallah bi ñu seqoon. barke laa ilaha illallah bi ñu seqoon léegi. nga xam ne baat yi yonent bi wax ak mbokk yonentam yi ko fi jiitu nga xam ne sallallahu alayhi wax na ci ak mbokkam yi ko jiitu woon. bi ci gën. bi ci gën. mooy baatu laa ilaha illallah. mbooloo mi fi tase tey. mbooloo mi fi tase tey. bu cat tabbi. yàlla bu cat tabbi amiin. seq xadra bi. seq xadra bi. defe naa ne mosu fee daje. defe na ni daal mosu fee daje. ñu bokk di yëkkati baatu laa ilaha illallah. ñu bokk di yëkkati baatu laa ilaha illallah. xol yi ak ruux di dund. xol yi ak di dund. yàlla di bég. yàlla di bég. asamaan ak suuf di jokkoo. asamaan ak suuf di jokkoo. loolu loolu doy na liggéey. mag mu baax mi ñu ko faggul nag. mag mu baax mi ñu ko faggul nag. di maam Cheikh El di suñu maam Cheikh Seydi El Hadj Malick. fii nekkoon palaasam. fii nekkoon palaasam. nee nañu ba mu demee Makka 1888. nee nañu ba mu demee Makka 1888. ba mu demee ba jàkkaarloo Kaaba gi. ba mu demee ba jàkkaarloo Kaaba ga. def la muy def ba noppi. def la muy def ba noppi. dafa téye ca mbicc Kaaba ga. dafa téye ca mbicc Kaaba ga. foofu. te foofu. muy baabul kaabati. muy baabul kaabati. am na. am na. lu rëy lu fa nekk. lu rëy lu fa nekk. boo wàccee ci baabul kaabati tuuti. nee na boo wàccee ci baabul kaabati tuuti. dox ay jéego tuuti. dox ay jéego tuuti. foofu la ñuy tuddee xatiim. foofu lañuy ñuy tuddee xatiim. ca wàll ga ko féete ndeyjoor tuuti. wàll ga ko féete ndeyjoor tuuti. foofu moo di multazam. foofu moo di multazam. beneen wàll ga féete ar ruknul yamaani beneen wàll ga féete ar ruknul yamaani war ruknu shaami war ruknu shaami fa la xijru ismaila nekk fa la xijru ismaila nekk misaabu rahmati tiim ko misaabu rahmati tiim ko dafa bokk ci barab yi nga xam ne dafa bokk ci barab yi nga xam ni loo fa ñaan yàlla mu nangul loo fa yàlla mu nangul la ko nga wéy tuuti nga wéy tuuti muy maqaamu sayyiduna ibrahim muy maqaamu sayyiduna ibrahim xalilullaahi wattaxaza allaahu ibrahima xalilan moo tax suñu maam Cheikh Sidil Xaaji Malick ba mu ajee mu xam ni foofu dafa bokk ci palaas yi ñuy nangoo ñaan bayna alxajar alaswadi bayna alxajar alaswadi wa baabil kaabati wa baabil kaabati walxatiimi walxatiimi walmultazami walmultazami wa xijri ismail wa xijri ismail wa maqaami ibrahim wa maqaami ibrahim mu téye ca askaaru kaabati mu téye ca askaaru kaabati fekk waajal na ko fekk waajal na ko lu jiitu muy dem lu jiitu muy dem ba muy dem ndaw la ci at ba muy dem ndaw la ci at waaye fekk na mu fees dell ci wàllu yàlla waaye fekk na fees dell ci wàllu yàlla ndax booba summeeku na. ndax booba summeeku na. mboolem xeeti feebar yi gàllankoor nit. mboolem xeeti feebar yi gàllankoor nit. di indi feebaru xol. di indi feebaru xol. yàlla baaxee na ko. yàlla baaxee na ko. mu summeeku ca ba set wecc. summeeku ca ba set wecc. mboolem jikko yu tedd yi. mboolem jikko yu tedd yi. mu ràngoo ko. mu rëy. rëy. soxor. iñaan. iñaan. mer. bëgg daraja bëgg daraja. naw sa jëf naw sa jëf. xeebaate xeebaate. iñaan iñaan. xeetu feebar yooyu xeetu feebar yooyu. ku mu sanc ci sa xol ku mu sanc ci sa xol. doo mos yàlla doo mos yàlla. te maam Cheikh El Hadj moo ko wax. te maam Cheikh Sidi El Hadj moo ko wax. nee na ñeenti picc ngi nii. nee na ñeenti picc ngi nii. yoo xam ne jikko ya ñu am. yoo xam ne jikko ya ñu am. xol bu mu sanc. xol bu mu sanc. ruuxu kooka. ruuxu kooka. du yéeg dem ci kaw. du yéeg mukk. jëm ca kaw mu jàpp ca askaarul kaabati mu jàpp ca askaarul kaabati ni yow yàlla ni yow yàlla maa ngi lay ñaan maa ngi lay ñaan réew ma ma bàyyi ko ak ceddo dafa yàgg ak ceddo dafa yàgg aljaahiliyatul jahla aljaahiliyatul jahla dafa sanc dafa sanc ba indi fa leer du yomb ba indi fa leer du yomb maa ngi jéem li ma mën nag maa ngi jéem nag li ma mën fa tabaarakallaahu waaye daal loo ma nar a may ci leer. waaye loo ma nar a may ci leer. yow yàlla yow yàlla. dencal ma ko ba ëllëg. denceel ma ko ba ëllëg. ndax réew mooma. ndax réew mooma. lu fa feeñ ci leer. lu fa feeñ ci leer. danañ ko jaxase ak lëndëm. danañ ko jaxase ak lëndëm. muy benn muy benn. bu ñaareel bi mu ne ko. bu ñaareel bi mu ne yàlla. dama bëgg nga su ma delloo Sénégal. dama bëgg su ma delloo Sénégal. nga may ma barab boo xam ne. nga may ma barab boo xam ne. danaa fay tuur sama ñaq. danaa fay tuur sama ñaq. fa dajeeg samay mbokki jullit. di fa dajeeg samay mbokki jullit. ñuy jàng suñu diine. ñuy jàng suñu diine. di leen defal seen tarbiya. di leen defal seen tarbiya. di fa xamante. di fa xamante. di fa di fa di fa di fa defaroo daal. di fa defaroo muy barab bii ñu toog. muy ñaar. muy ñaar. bu ñetteel bi ñetteel bi. mu ko dama bëgg su ma delloo. dama bëgg su delloo Sénégal. may ma nga may ma. jaarale ci man. jaarale ci man. ma tabax ay jàkk ak jumaa yu bari. ma tabax ay jàkk ak jumaa yu bari. ak ay zawaaya. ak zawaaya yu bari. fa ma ca mën a yem ma yem ca. fa ma ca mën a yem ma yem fa. la ca des. la des. sama njaboot mottali sama njaboot mottali ko. bi mu dellu see Sénégal. na Cheikh El bi mu dellu see Sénégal. Ngambu Chile la dem. Ngambu Chile la dem. fa tabaarakallahu. delluwaat Ndar. ba bi muy ñëw Njaarnde. ba bi muy ñëw Njaarnde. ba 1897. 1897. yàlla baaxe ko mu ñëw Tiwaawan. yàlla baaxe ko mu ñëw Tiwaawan. sanc sanc fa. waalo ñëw. waalo ñëw. jolof ñëw. jolof ñëw. ndax nit. ndax nit. pour mu mën a réussir mission pour mu mën a réussir mission il faut ay mbokkam jàppale ko. fokk ay mbokkam jàppale ko. walaw laa rëxtuka. walaw laa rëxtuka. la rajamnaaka la rajamnaaka wa ma anta alayna bi aziz wa ma anta alayna bi aziz moo tax waalo ñëw moo tax waalo ñëw jolof ñëw jolof ñëpp ñëw jàppale ko ñëpp ñëw jàppale ko di ay bokkam. bi dëkk bi xatee. bi xa dëkk bi xate ci gàttal ci gàttal. ba yàlla indi ko. ba yàlla indi ko. boole koog maam muttu fa tey. boole koog maam muttu fa tey. fii ñu toog du jag saaw. fii ñu toog du jag saaw. jag saawa ngi fii. jag saawa ngi fii. war na mat benn kilomètre ak genn wàll. war na mat benn kilomètre ak genn wàll. wala ñaar wala ñaar. maam muttu fa yaatal ko. maam muttu fa yaatal ko. fa tabaarakallahu. maam Cheikh Seydil Hadji Malick ca ragal yàlla ga. ne ko bëgguma fu bay ba noppi. ne ko bëgguma fu ñu bay ba noppi. dama bëgg fa nga xam ne fa mu gën a dëgëre. damaa bëgg fa mu gën a dëgëre. gën a méttee. gën a méttee. nga jox ma ko. nga jox ma ko. ànd ak samay bokk. ma ànd ak samay bokk. defar ko defar ko. ci gàttal ci gàttal. ci gàttal daal. bi ko yàlla joxe fii ba noppi. bi ko yàlla joxe fii ba noppi. muy faas. muy faas. di dëkk ba. di dëkk ba. fii di tool yi. fii di tool yi. te gent ba sax moo jiitu. te gent ba sax moo jiitu. peste moo fa amoon. peste moo fa amoon. man mii. nee na moom mii. booba Serigne Sidi Ahmed mi ngi fii ci Fass. booba Serigne Sidi Ahmed mii mi ngi fii ci Fass. ci Baye Tidiane si mbër. ci maam Tidiane si mbër. am na at moo xam ne. am na at moo xam ni nawet nañu ak góor gi ca gent ba. nawet nañu ak góor gi ca gent ba. waaye pest am fa. waaye peste am fa ca gent ba. ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko. fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu. waaye daal bi ko yàlla joxe barab bii. waaye daal bi yàlla joxee barab bii. mu ne gëm naa ne. mu ne gëm naa ne. sama ñaan ga ma ñaanoon ca Kaaba ga. sama ñaan ga ma ñaanoon ca Kaaba ga. fii la ma ko yàlla nangulee fii la ko yàlla nangulee. kon nag jag saaw mi ngi nii. Cheikh El Hadj Malick. maam Cheikh Seydil Hadj Malick. mag ñi ngay dégg ñu bare bare bari. mag ñu bari ñi ngay dégg. boo leen masaana jàngal ca Tiwaawan ba noppi. boo leen bu leen masaana jàngal ca Tiwaawan ba noppi. daf leen di yebal fii. daf leen di yebal fii. ñu ñëw ñu ñëw. ku fi nangoo toog. ku fi nangoo toog. mu xam ne. mu xam ne. yàlla la tax a jóg. yàlla la tax a jóg. ku nanguwul toog. ku nanguwul a toog. mu xam ne bakkan la tax a jóg. mu xam ne bakkan la tax a jóg. mu bàyyi la nga dellu. mu bàyyi la nga dellu. kon sëriñ baa leen di dalal jàmm. sëriñ bi nee na ngi leen di dalal jàmm. ngeen ñëw. ngeen ñëw. yàlla rek leen indi. yàlla rek moo ñu indi. fa tabaarakallaahu. yal na yàlla nangu. yal na yàlla nangu ñaan yëpp. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. nañu dollee góorgóorlu. nañu dollee góorgóorlu. ci suñu wàllu diine. ci suñu wàllu diine. nit ki amul lu ëpp diineem. nit ki amul lu ëpp diineem. fonk suñu diine. ñu fonk suñu diine bu baax. ba ca jiitu. ba ca jiitu. mooy wéetal yàlla. mooy wéetal yàlla. waaw Sayyiduna Abdullah. nee na Sayyiduna Abdullah. Ibnu Jundub. in Ibnu Jundub. Ibnu Jundub. in Ibnu Jundub. radiyallahu anhu. radiyallahu bi ñu nekkee ci yonent bi. nee na bi ñu nekkee ci sallallahu alayhi wa sallam. daf ne kunna. daf ni kunna inda nabiyi fityaanan xazaawiratan ba ñuy nekk ci sallallahu alayhi wa sallam ay ndaw la ñu woon waaye kunnaa nata'allamu al-iimaana nee na kunnaa nata'allamu al-iimaana qabla an nata'allama al-qur'aana qabla an nata'allama al-qur'aana falammaa ta'allamnaa al-iimaana falammaa ta'allamnaa al-iimaana ta'allamnaa al-qur'aana ta'allamnaa al-qur'aana fazdatnaa fazdatnaa iimaanan iimaanan wa yaqiinan wa yaqiinan nee na ba ñu nekkee di ay ndaw nee na ba ñu nekkee di ay ndaw ci wetu yonent bi ci wetu sallallahu sallam lam ñu daan njëkk a jàngal lam ñu daan njëkk jàngal mooy tawxiid mooy tawxiid wéetal yàlla wéetal yàlla bañ ko bokkaaleeg dara bañ ko bokkaaleeg dara shirk baaxul shirk baaxul sang bu tedd bi li muy foor foor. sallallahu alayhi wa sallam li muy foor foor. yàlla nee na ko. yàlla nee na ko. wala qad uuxiya ilayka. wala wala qad uuxiya ilayka. wa ila alladina min qablika. wa ila alladina min qablika. la in ashrakta. la in ashrakta. la yaxbatanna. la yaxbatanna. amaluka. amaluka. wala takunanna. wala takunanna. du wala de wala. wala takuunanna. wala takuunanna. wala takuunanna. minal xaasiriina. minal xaasiriina. balillaaha. balillaaha. faabud. faabud. wa kun. wa kun. mina shaakiriin. yonent bi taxu koy wax. nee na moom daal sallallahu alayhi wa sallam taxul muy wax. ndax yonent bi kuy jëmmal tawxiid mooy sa kilifa. ndax sallallahu alayhi wa sallam kuy jëmmal tawxiid moo moo moo say sa kilifa. diinan qayiman. diinan qayiman. millata Ibrahima. millata Ibrahima xanifan. wa maa kaana minal mushrikiin. wa maa kaana minal mushrikiin. qul inna salaati. qul inna salaati. wa nusuki. wa nusuki. wa maxyaaya. wa maxyaaya. wa mamaatiya. lillaahi rabbil aalamiin. laa shariika lah. wa bi daalika umirtu wa ana awwalul muslimin sallallahu alayhi wa sallam xeet wii moo taxoon muy wax yàlla ci boppam xeetu sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon muy wax kon ñu dollee góorgóorlu. kon daal ñu dollee góorgóorlu. innahu man yushrik billahi. innahu man yushrik billahi. faqad harrama allahu. faqad harrama allahu. alayhi aljannata. alayhi aljannata. wa ma'waahu naar. ñu moytandiku bokkaale. ñu moytandiku bokkaale. wéetal yàlla. wéetal yàlla. ci jëmmam. ci jëmmam. ci ay melom ci ay meloom. ci ay jëfam. ci ay jëfam. fa tabaarakallaahu boo demee ci ifhaamul munkiril jaani boo demee ci ifhaamul munkiril jaani bokk ci téere yi mam Cheikh El Hadj Malick mujj taalif bokk ci téere yi maam Cheikh Sidi El Hadj Malick mujj taalif wu soog a wujj boromam. am na ci chapitre boo xam ne. am na ci chapitre boo xam ne. wax na ci shirk. wax na ci shirk. ak lam ak la ca aju. ak la ca aju. ak xeetu shirk yi am. ak xeetu shirk yi am. pour dégager responsabilité responsabilité am. ñu bàyyi ci xel ñu bàyyi ci xel bu baax. yaatu na lool yaatu na lool. neexu la mucc neexu la mucc. waaye nag ñaan yàlla musal ñu ci. waaye nag ñaan suñu borom mu musal ñu ci. bu tawxiid paase. bu tawxiid paase. na ko borom laxdar yu waxee. na ko borom laxdar yu waxee. awwalu maa yajibu alal mukallafi. awwalu maa yajibu alal mukallafi. tasxiixu imaanihi. tasxiixu imaanihi. képp ku ñu togg jëf. képp ku ñu togg jëf. te wa kullu taklifin bi sharti al aqli. te nag wa kullu. takliifin takliifin bi chartil aqli ku amul xel ku amul xel kenn togg ko jëf kenn tegu la dara waaye boo xasee ba nekk mukallaf waaye boo xasee ba nekk mukallaf li njëkk a war ci yow li njëkk a war ci yow moo di moo di nga fexe ba sa ngëm yàlla wér nga fexe ba sa yàlla wér te foo toll ngay fexe mu yokk te foo toll ngëm yàlla gi ngay fexe mu yokk yonent bi daan ko def ak daan na ko def ak saxaaba yi daan na leen wax ne jaddidu imaanakum daan na leen wax ne jaddidu imaanakum ngeen xam ne kon ngëm yàlla. ngeen xam ne kon ngëm yàlla. dana ràpp dana ràpp. la tax mu ne yeesal leen. ba ta la tax mu ne yeesal leen. ngëm yàlla dafay ràpp. ngëm yàlla dafay ràpp. da gis ku départ am départ bu baax. da nga gis ku départ départ bu baax. sawar jaamu yàlla. sawar jaamu yàlla lool. sawar ci jàng alquran. sawar ci jàng alquran. dem jàkka. dem jàkka ja. dimbali ku mu tane. dimbali ku mu tane. jékki rek. jékki-jékki rek. seytaane. seytaane. song ko. song ko. su amul tawfiq. bu amul tawfiq. day jékki-jékki teg lépp. lépp ci suuf ah suñu pap Moulay si bi nee na bismillah pap Moulay bismillah pap Moulay si bu ñu suñu maam sëriñ Habib si radiyallahu taala anhu nee bismillah pap Moulay tafaddal bismillah sëriñ mu ne Pape Malaye nga egsi ñu may ko mu agsi ñu may ko mu agsi Pape Malaye bismillah bismillah Pape Malaye sëriñ na bismillah di rakki Cheikh Alxaaji Abdul Si ñu tudde ko way juram way juram way juram di Cheikh El Hadj Habib. di miin na ko. barab miin na ko. mu miin barab bi mu miin barab bi. na fi wuutu magam. daan fi wutu magam. ay weer jiite tool yi. jiite tool jiite daara ji jiite daara ji. wasifa wi tudd yàlla rek. tudd yàlla rek. daawul nelaw guddi daawul nelaw guddi. fa tabaarakallahu waaye su góor gi masaana ñëw. waaye bu góor gi masaana ñëw. bu góor gi dugg si rek. bu góor gi dugg si rek. jël nay bagaasam dem. ndax xorma. ndax xorma. fa tabaarakallahu. yal nañ leen yàlla fayal. loolu moo doon kaddu yi. loolu moo doonoon kàddu yi. sëriñ bi daf ne woon rek. sëriñ bi daf ne woon. ñu fàttalente. ñu fàttalente. waxtu wee xaw a xat. waxtu wee xaw xat. waaye bëggoon nañ mu gën a yaatu. waaye bëggoon nañ mu gën a yaatu.